الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala da jëli ci sayyiduna muhammad sallallahu wa sallam sant yàlla mi nga xam ne moo ñu may ngëm yàlla te mooy al iman waaye sant yàlla mi nga xam ne moo ñu jox al islaam sant yàlla it mi nga xam ne moo ñu def ci xeetu seyidina muhammad sallallahu alayhi wa gannaaw loolu ñu julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gi sahaabaam ak ñi nga xam ne ñooy waa këram ak ñu topp ci gannaawam yépp sahabatul kiram waaye ñaanal yàlla subhaanahu wa taala ñi nga xam ne ñoo taxawu diine ji bu mu yegg si fii yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla fay leen ñi nga xam ne ñoo fi deseni di mag ñi mooy sunu kilifa diine yi yal na yàlla aar leen yal na yàlla sàmm leen ba lépp loo xam ne moo doon seen mission yi waajur yal na yàlla may leen ñu mottali ko boo def sax lu ëpp moom la ñu di defoon yal na leen ko yàlla defal ñu balu àq ñépp ci weeru koor bi ñu du jóge di ñaan si yàlla subhaanahu wa taala lépp luñ ci jàmm yàlla ñu ko yàlla nangul waaye ñaan yàlla subhaanahu wa taala it lépp loo xam ni ay sarax la walla jàng alquran la yàlla ñu ko yàlla nangul ñaan yàlla ñi ci dem barzaq yàlla na yàlla yërëm leen xam naa rek bala ñuy commencé waxtaan bi ñu defal sunu ñaari wayjur yu jigéen ñaan mooy soxna imam wan ci jàkkaay Bagdad waaye defal yaayu xalifa Babacar Sall moom it ñaanal ko yàlla ñaanal leen yàlla yal yàlla yërëm leen ko defee ñu ñaan kenn ku nekk nga jàng fatiha ñetti qul wallahu ahad ñu def ko hadis sayyiduna muhammad yéene leen yool bi yal na yàlla jottali leen ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah allahumma axfir lahum warhamhum warsuhum wasatal jinaan warsuhum jawaara sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu jéem a profité ci temps bi ñuy am ndax dañu bëggoon a waxtaane ci ñaari point dama noon sax damay dégisoo comme ñoom waaye jaru ko mooy Palestine ñu bëgg ci waxtaan ci fukki minit ak juróom ñaareel bi ci lii nga xam ne moo xew bu yàggul mooy loolu ñu tuddee wàllu homosexualité mooy wàllu góor jigéen incha allah danañ ci ñëw ci kanam bu ko defee li ñu tuddee Israël du ma wax sax Palestine wala damay wax ne al-Quds kon waxtaan bi damay wax ni makaanatul masjidul aqsa fil islam maanaam moske al quds ban taxawaay wala ban place la am ci lislaam ndax ñu bëri bu ñuy wax dañuy wax Israël rek ak Palestine mel ni affaire bi moom Israël Palestine rek fàtte nañ la waral Israël ak Palestine xool nga li xew Israël diggante Israël ak Palestine ab jullit warul toog rekk ne sama yoon nekku ci xam nga lu tax ñoo bokk diine ji beneen bi ci des alquran moo wax ne innama almuminuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum maanaam alquran moo wax ni ñi gëm yàlla ñëpp ay mbokk lañ kon rekk waay na ngeen fexe ba yéwénal mbokk googu kon loolu ku jàpp loolu rekk yaa ngi ci erreur bu metti beneen bi ci des mooy waxuma sax jullit yi waaye ñi nga xam ne ay nit lañu am lu ñu gëm ima ñu nekk ay juif di gëm yàlla wala ñu nekk ay chrétien gëm yàlla c'est-à-dire mooy al yahud wa nasara ñépp bënuñ comme li ñoo tuddee tubaab tubaab ñépp bonuñ danañ ci ñëw ci détail waaye al maqsadul al masjidul aqsa buqatun mubarakatun taqa'u fi madinati alquds aw bayt almaqdis allati tatawassatu al aradi alfalastiniya almasjidu al aqsa qiblatu almuslimina al ula dama ne masjidul aqsa benn lieu saint la maanaam place la bu sell moom masjidul aqsa beneen bi ci des mooy mu ngi nekk ci dëkk bu tudd Palestine fa la masjidul Aqsa nekk beneen bi ci des mooy palas euh, al masjidul Aqsa moo njëkk a nekk xibla ci jullit ñi ñëpp xam nga fi mu ne nii bu ñuy julli ñu ngi jublu masjidul al haram waaye commencé wu doon foofu dinaa ci ñëw beneen bi ci des mooy wàccuwaay bi mu am kon jàppal ni masjidul Aqsa te yi nga xam ne fa lañ fekk julli ji di leen bombardé foofu mën na wax ne mooy mahbatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi rihlatihi al ardiya ay al isra maanaam sayduna muhammad tukki bi mu defoon mooy voyage boobu nga xam ne terrestre la fa mu ko def dem fa mooy al masjidul te mooy isra bi ñaareel bi mooy wa man talaqa wa fi rihlati as-sama yaani al mi'raj maanaam ci masjidul aqsa sayduna muhammad fa la déparé dem ci boromam kon loolu bépp jullit war nga xam ne am na gëdd bu lislaam jox barab boobule masjidul aqsa alquran ma wax ne subhaana asra bi abdihi leylan fan la ko jëlee mu ne min al masjid al xaraami fan la ko jëmee mu ne ila al masjid al aqsa allazi barakna xawlahu maanaam yàlla nee na est man mi nga xam ne maa jëlee sama jaam mooy seyduna muhammad jëlee ko foofu yóbbu ko fan masjidul euh, baytal haram yóbbu ko al masjidul aqsa bi mu ñëwee foofu te loolu mooy bi mu dépare màkkatal mukarrama te mooy euh, baytul haram ñëw baytul euh, maqsidul asqa aqsa loolu mooy al isra ba mu jógee nag fa la dépare nag min al baytil maqdis ila samawatil ula ci foofu la dépare war a dem fekk boromam subhanahu wa taala loo tax mu ne nag li tax yàlla di ko defal yépp li nuriyahu min ayatina ngir ñu won sayduna muhammad ci ay kéemtaanam yu nekk nak sayduna muhammad gis na ko nag waaye lam fa gis yëpp maa saaxal basaru wa ma taxa xool kon loolu début l'islam kaana qiblatul muslimin baytula baytil maqdis ci commandement l'islam baytil maqdis moo doon penku jullit ñi lu mot fukki at ak ñett nga xam ne bu ñuy julli jubluwaay bi comme ni ñuy def ni ci jàkk yi <coughs> ñu ngi ko doon def al masjidul al aqsa ci taarix ñu ne biñ demee boo bésu talaata ci ñiñ ko waxee ci nisfu saabaan ci bi ñuy julli julli tisbaar bismillah ah, ah, baytul maqdis fala seyduna muhammad doon jublu lu mot fukki at ak ñett waaye bi ñu demee boo alhijratul ula ci at bu njëkk bi mooy gàddaay gu njëkk gi c'est-à-dire gannaaw bi ñu yónnee seyduna muhammad fukki at ak ñett yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa defoon xolam masjidul xaraam mel ni bu ko mënoon daal yàlla wàccel ko aaya wëlbati ko xibla gi te mooy baytillaahil xaraam mooy masjidul xaraam looloo tax alquran wax ni qad nara taqaluba wajhaka fi samaai fa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha yàlla dafa wax ci see aaya bi ne yow sayduna muhammad seet nañ ne yaa ngi xool asamaan di xaar am waxyu bu wàcc wax la kibla boo xam ni moom nga gën a bëgg te mooy baytilaal xaram mu ne nag fa la nu walliyanaka qiblatan tardaha dinañ la wëlbati yóbbale ci xibla boo xam ne bi nga gën a bëgg te mooy baytilaal xaram ca la ko wax ne nag fa walli wajhaka satral masjid al haram dañ wax ne dañu aaya bi bi mu wàccee fekk ñu julli noonu rek lañ wëlbatiku moo tax boo demee madinatu munawwara masjidul qiblatayni da nga ko fa fekk boo dugee ci biir xibla bi fi maam fi mu njëkkoon a nekk boo julli da ngay jublu Jérusalem mooy al masjidul aqsa waaye nag bi aaya bi wàccee rek lañ wëlbatiku jublu baytillahi al haram moo tax ñu ne masjidul qiblatayni léegi nag ñu seet ne Israël eh, eh, dama leen koy régimer rek histoire Palestine <coughs> Israël boog conflit bi xool nga Hitler moom yéene moo doon dafay fexe boo raaf lépp luy juif da leen doon jàpp di leen lakk di leen toroxal ñu commencé di daw jóge ci dëkk yooyu di daw ñi jóge ci dëkk arab yi di daw bi ñu dawatee amatuñu fi ñu dëkk lañ wax ne kon nañ dallu Israël mooy la paix euh, terre promes bi nga xam ne dañ waxoon diggoon nañ leen ko ci histoire Palestine moom moom dëkk ba c'est-à-dire moom mooy cosaan bi mais ñi dañu gàddaay ñëw fekk leen foofu kon Israël kenn créé ko lu dul États-Unis moo tax mën nañ wax ni état place euh, Israël benn département la ci États-Unis loolu tax lu leen neex ñu def ko waaye Nations Unies doo mës dégg ñu contester leen ñuy fay def waaye keneen ku dul ñooñu booy def rek ñu dal sa kaw mais loolu nag kan la dama wax ni arabu saoudite ñoo amul fulla ak duwalal arabiya yi am kàttan ñoo amul fulla faalewuñ ko ndax bu ñu amoon fulla tey Israël wala États-Unis sañu la def loolu waaye malheureusement ndax Israël xool nga Iran Irak Misra Soudan Jordanie dëkk yooyu yëpp Arabie Saoudite bu àndoon ak ñoom ne ñetti dootul fi am dootul fi ame waaye Arabie sawdit malheureusement ña fa nekk macha allah ay jullit lañ waaye ñi nga xam ne ñoo mam mamlaka bi seen mam mamlaka bi rek la ñu la ñu protéger maanaam seen pouvoir bi ñoom seen pouvoir bi fekk laaluñ ko rek leneen li ci des seen yoo nekku ci te loolu nag eh, xam nga toog nañ fi rek eh, am na jullit ñu sàggan boo xam ne dañu jàpp ne arabu saoudite lépp luñ def rek dañ ci war a ànd mais ñun yàlla royloowu ñu arabu saoudite sayduna muhammad la ñu royloo sayduna muhammad la ñu royloo waxuñu ne royu arabu saoudite arabu saoudite lu muy def bu dëppoo ak sunna duñ ko topp ndax nag yàlla waxu ne na ngeen ko roy ki ñu roy mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon israël xoolal mën nañ wax ni après guerre mondiale mooy 39 45 1948 ca lañ sos a dawlatu al israiliya te nag loolu ñi nga xam ne ñoo ko tëral mooy Nations Unies ñoo ñëw xaaj ne lii Israël moo fi dëkk am na borom ko benn xam boroom xam-xam bi muy wax Israël ak Palestine ne na dafa mel ni nit koo xam ne dafa amatul fu mu jëm léegi nga ne ko ah comme amoo foo jëm ñëw nga fii kaay ma dalal la sama kër nga dëkk ci néeg bi waa ji ñëw dëkk ci néeg bi di xëy ak yow di fanaan ak yow di dem di ñëw dem ba mu mu xëy ne kër gi dañ koy xaaj noonu la histoire bi demee kër gi dañ koy xaaj fii yow yaa ko moom waaye fii maa koy moom mais Nations Unies ñoo ñëw xaaj dëkk ba waaye Palestine mooy ardul muqaddas mooy euh, Jérusalem fa jàkk ja nekk tey même ki nga xam ne moo fi nekkoon euh, président États-Unis mooy Trump li muy saasaay yëpp waxoon na ne ay al-Quds nañu may bépp ko xam ne diine nga gëm mooy yahud ak nasaara ak muslimin kenn ku nekk nga mën a def sa prière normale donte saasaay la waaye dama ni Eh, mu taw eh, Cheikh Abdoul Hamid Kishk waxoon na ne arabu saoudite bu amoon fulla li mu am ci pétrole bu gëmoon boppam tiye pétrole am nee na états day dem yelwaani mu ne walawlal pétrole la saoudi la mata américa mu ne bu nekkuloon pétrole arabu saoudi bi nee na États-Unis dee na bu yàgg loolu tax lu nekk danañ ko def pour ànd ak États-Unis seen xaalis bi mu wax ne nag li ko jaaxal moom ah, Abdul Hamid Kishk mu ne lan moo tax eh, Arabu Saoudite ay nangami milliards mu jël ko yóbbu ko ci banque États-Unis ak Suisse ak feneen mu ne waaye mu jël ay nangami junney kaamil di ko yónnee rek ci réew jullit yi mu ne nax est-ce que kaamil mën na faj xiif kaamil mën dafa xiif kaamil mën dafa xiif ndax fal yaabudu rabba haasal bayt lu mu ci teg allazi atamahum min juuin wa amanahum min xawf kon loolu saggante arabu saudi la moo ko waroon a boot xool nga tey discours bi nga xam ne moom la Erdogan am eh, roi Mohammed VI am ko arabu saudi moo waroon am discours boobu moo tax Erdogan ku jara ñaanal la ndax moom bokk na ci ñi nga xam ne l'islam bi ku ko laal mu jog comme ni ko sunu mag ñi di defee kon loolu moom laa doon résumé rek ci li nga xam ne mooy euh, ci wàllu al Palestine xool nga même Senghor bi muy nekk président Sénégal ci ñi njëkk a nang bañ ne Israël du am fi and euh, euh, ambassade ci la bokk mosul nangu mu am fi ambassade te moom musul nangu saa yuñ doon woote loo xam ne mooy contre loo xam ne mooy attaqué Palestine moom ci ñiy njëkk a wax la bokk kon nag xool nga euh, intérêt sa réew wala économique warul tax bu ñuy song sa moroomu jullit nga noppi ci ndax nag man raa minkum munkaran fal yughayyiru bi yadihi boo xadis ba jeex